Euh, de, la commune de Touba le euh, capitaine du service d'hygiène hein, euh, de Touba sous-préfet de Ndam nous donc la disposition du commissaire Djel également dispositif bi voilà nous est-ce que nous quand même nous nous que euh, dinañ gëna yok communication bi pour que nit ñi mëna comprendre que bu ñu paree euh, nettoiement yi marché bi désinfecté ko fi nit ñi wara togat ci wara jaay lu melne ñam yeeg yooyu ak weeru koor bi ñuy dugg fofu dina fekk ñu tracer ko ñu xam ko bu baax ndax euh, du du tej marché semaine ñetti fan yi ñu permettre ñenn ñi ñëw ñuy duggaat fa ñu nekkoon

pour une concentration, pour un dialogue. Dajalo vient nous faire une bon tas. Nous, nous, Donc, je suis content de voir cette visite. Je euh, de euh, euh, féliciter hein, la population. Parce que, aussi, dès que nous avons le général, dès que nous avons appelé l'autorité de défense, nous avons